asalaamaaleykum mbokki réew mi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV waxoon naa leen ni leen Seydil Xaaji Maalik li mu yor ci ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn xamul nu mu toll kii ngeen gis ni ab saret laa dajeeg moom muy jaay xorom sa waay loo wax ah tubaar fakallaahu comme ni nga ko waxee noonu rek la ñun soppe Baye Mbaye doon na la ñun di soppi tarixe bi fa tubaar fakallaahu ñun suñu yitte yëpp mooy tagg yonente bi saa man nag sama tur mooy Abdoul Aziz Dabakh moom la tuddee ba su ko defee rek ñu fàttaliku Baye Mbaye ñekk ci keppaaram sànni ci ay kàddu insha allahu rabbi imaamul xurti war a alamay na rabul alamina Mamadou Lamine njol makka leen gën njol makka leen gën lawul xidamul mahaloomu fil batsi wal nada lawul xidamul mahaloomu fil batsi wal nada waqad waqabal axlaaqa wastalamal qida wa fi kulli xayrun jumlatal balaqal mada bawaatinu noorun سوائر هدى فلا يخفى ولا نور يقبو kooku muy Seydina Muhammad Rasulullaay waaye la xoola sëñ bi ma nga ne ca Madina mooy lawul xiddamul mahluumu fil bat sewal na daay waxat wa xabal ak laay xawaas talaamal xidaa waaye nag looloo tax wa fii kulli xayrin jumlatal bala xalma daa yonen rajo yàlla ka jëkk paasa rajo analyser ko génnal ni résultat wax ni biir bi leer la bitti bi la rajo yàlla ni bawaatiina hon noorun sawa iru huda fala atoo yaq bay wala nooru yaq boo allahu akbar allahu akbar jërëjëf Seydi Hadji Malick mbokk yi gis ngeen ko mu ngi nii fii la ñëw yore sareetam di jaay xorom mais moo dàq toppandoo Baye Alxaaji Mbaye Donde na ko ñëpp xam mu ngi nii sa numéro téléphone ñaata la. 77. 976. 16 25. Alxaaji Mbaye Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf.